bu ko may dara nag ci xam naa taaba daa kii waaye am nañ si élément waaye xam naa élément bi oustaz. Mm-hmm. Euh, mën naa la ko wax nii rek. Mm-hmm. waa ji akub xaritam. Mm-hmm. maa ngi koy wax mu di sàng nii sax. waaj nee na moo ko xaritam ñoo dëkk ñu nekk euh, waa ji day dem maam fi muy nekk dafay liggéeyee maam dëkku fa. yaa may dégg mais kër xarit bi lay dem di fa reere. benn jour nag réer si wut xarit ba doxi si la tëdd ba guddi après daal dem jóge foofu daal dem kër xarit ba pour reer yi fekk na xarit ba génn waaye ndaw sa tëddoon na ki ko war a jox reer bi mu fëgg mu ne ko jàll si après si la jàll si biir fekk na ndaw si moom su meeku woon na ba war na tëdd ndaw sa daal di dem daal di dem sa waa ñu jël reer bi ñëw fekk ko mu jox ko après waa ji di génn ak reer bi taseeg borom kër gi di dugg si muy génn si néeg bi borom kër gi di dugg si xelam ñaaw waa ji daal di dem mu ni ko lii bettu woon fanaanee xuloog ndaw si ba bët set ni ko ndek ndekete yaa ak sama xarit bi su ma génnee yéen nga ko ca nekkal di sëy ak yoonam te ndekete demewut noonu bu coow amee mu ni da koy fase kee ñëwaat nag ñaan ba sonn mu lànk léegi noo noo noo noo noo déggee kii bi waaw histoire bi ba tey ustaas bu ko fasee nit ñaan ba sonn fase nit ñi ni ko ginnaaw yaa ko yóbbee comme nag yaa ko yóbbee fase gi <laughs> ah. te nga koo jël takk ko takk ko hmm. ah mu ne buy laajte ba xam war na ko mën a takk war war ko mën a takk bu ko takk. Ah, ok <laughs> wala bi rek <laughs> nit ñi ko takk benn moo gën koy bàyyi. waaw waaw xam nga Modou. Euh, dafa am loo xamante ni dañ ko war a xam. mooy yenn heure la ñu war a seeti nit. yenn heure. waaw surtout. diine ngay wax wala wax de. diine ma wax. Euh, <laughs> waaw yenn heure la bu ñëw ci jawar jàmbur. jërëjëf Didi. Hmm? xam nga lislaam dafa civilisé Modou waaw. lislaam bëggul kuy seeti nit suba teel fajar gi fajar gi suba teel muy benn lislaam bëggul kuy seeti nit après tisbaar heure sieste heure sieste bëgg ko guddi itam lislaam bëggul ku ciy seeti nit te yooyu de la yoo xamante nit ñi baawuñ ci xel donte la heure yëpp a dagana seeti ndax circonstance hmm. kon loolu nekkul débat nekkul problème waaye Assane lii dafa am sens trop xam nga Bambi lan mooy suñu problème jamono ji ñu damay wax nii sa xaritu sa jabaru xarit sa jabar la d'accord sa mag sa frère sa jarbaat sa lijaay gis nga jigéen ci boppam Bambi la la l'islam sécurisé mayu la liberté loolu ñuy wax laamiso Modou loolu ñuy wax laamisoo jigéen mayu lislaam mayu ko jigéen boo gisee mu ni jigéen almaraatu kulluha awra jigéen léppam awra la ba mu des tenkam ak xar kanamam asan foofu xel foog mu ñaaw bëri nag lislaam dama ni la foofu xel foog mu ñaaw baam bi ndax comme moom wax na ko na ñëw ñëw na euh, guddi jot na ñëw na jël si reer bi dugg na ci biir néeg bi jóolante na ak moom tombé jëkkër ji ñëw te moom ndaw si la mu sol fekk na ko mu sol solu ku mel ni kuy waaj a tëdd foo jaar nag baam bi xel ñaaw waaw ndax xel day yónni moo tax ci biir wax ji dégg nga li ko jëkkër ji wax kon yéen ndekete yàgg ndekete su ma génnee nii ngeen nekkee baam bi li tas réew mi nañ ko wax dëgg la Moodu mooy am jëkkër ji am far ji dafa bari ñu bari seen i xarit ay doxaan seen jabar. Eh, a nekk ki ngay ah, ànd ñaan si ataaya sax tur di reer dama ni la Baye Assane ñu bari seen i xarit ñooy doxaan seen i jabar. ay Sénégal gi ñu nekk li moo wax ni société bi moo yàqu. mais c'est la pure vérité. mooy problème bi gis nga baam bi li moo wax nii. bee ñu xam ne mooy dëgg gi. mooy société bi moo yàqu. yow sa xarit nit sa xarit naka la war a jëlee xelam di ko def ci sa jabar. defu ko ci dama lay wax defu ko ci. ñaaw njort rek te ñaaw njort waaye sax lislaam attention ci ñaaw njort. waa ji lislaam lu ñu xamul. ijtani bu kasiran mina zanni la yàlla wax. Mhm. xam nga li yàlla teg. Mhm. inna ba'da zanni ismun. waxuñu ni ñaaw njort dafa araam. Hmm. ah déedéet à cent pour cent déedéet. Mhm. lenn ci ñaaw njort li moo araam. mais ñaaw njort lu baax la. parce que boo ñaawul njort doo xam ki nga takk mooy kan. dëgg la te confiance bu xasee jeex ci sëy bàmmi leneen nekkatu fa gis nga confiance góor ñi maa leen conseillé képp ku amatul confiance sa soxna fase ko ah, bu dee attan déglu ma dama lay déglu ma ko dama déglu ban ban ko déglu ah non boo nobee tiil waaw ah, kay ngay wax kay attention confiance laa wax de parce que jabar yombul de oustaz bi passé li ma déglu ma li ngay wax di waxuma la loolu de ah, waxuma la nga am sa jabar fase ko de déglu dama koo amul ci moom confiance. waaw bàyyi amul kóolute amatul sa diggante ak moom. surveiller yarul tamour. waay waay Mour déglu ma. Mour dafa amatul woon xoola bam bi yàlla moo ñu wax ni. ñi nga xam ne da ngeen a ragal ñagas ñagas seen diggante. war na yàlla nit ki war leen leen amatul mbëggeel. déglu baax li ma lay wax. jigéen ñi nga xam ne da ngeen a ragal ñagas ñagas seen diggante. waar leen leen. Mhm. wallati taxaafuuna nusuuzahunna faa'izuhunna muy benn waar leen leen deuxièmement wahjuruhunna fil madaaji bu ñu tëddee ci kaw lal bi wàcc leen ci suuf yéen ndéem attan ngeen ko mm-hmm. yaa ngi dégg ndéem attan nga ko wadribuhunna na ngeen leen dóor mm-hmm. waaye bi dar bin xayri mu barraxin dóor boo xam ne du mu barraxin dóor boo xam ne du dóor buy gaañ waaye fay na taanaakum nag bu ñu leen toppee ñoom soxna yi def seen devoir fala tabu sabi la bu leen leen topp ci dara comme ñoom la leen war ña ngi koy def mais dama ni waa ji xamuñu la fa ni ñuy nettalee ni nga nettalee masala bi ni nga ko nettali boo dégloo da gis ni ndaw si deful dara. waa ji deful dara. loolu ànd nañ ci. ñaaw njort bi. yaa ngi dégg loolu ànd nañ ci mais xel waaja ñaaw na. wala takk mujj bi nag. Hmm? bu ne léegi problème bi attention problème bi léegi ndax waa ji war na koo takkam waru koo takk. ndax nee nañ moo ko yóbbee. waaw moo doy waar. pour bañ ñu sànni ko yooyu. waaw l'islam. ndax moo ko l'islam bam bi demul ci sa logique. demul ci li mu xam mooy li yàlla tëral. waa ji mu takk ndaw si. waaw eh, loolu laa wax. Ah, waaw mais bu ko takkee xel ah, dama ni sa xaritu jabar. sa xaritu jabar. ñàkkee fayda. yow nga ñàkk fayda sa xarit gis leen ni ko fase naa la waaw demal takk ko xam nga lu tax ay ñaari bàyyi ma ngeen dëgg la ñaari njaalookat ngeen te njaalookat lislaam nee na na takki moroom njaalookatam waaw mais ñu njaalowuñu ñu njaaloowuñu dama ni la ñaar ñu bokkul jikko parce que moom ndaw si moom ma moom Baye Assane du mën a takk di di man may xaritu Baye Assane keuse wala boog Moodu di xaritu Baye Assane ma joxe ko ci yéen Baye Assane Moodu du doon xaritam keuse Baye Assane mooy borom këru Didi ndekete Moodu moo moo Didi ñi ngi seq la ñuy seq. déedéet man maa ko fa yóbbu. non non doo ma déglu man man maanaam Moodu ba dee. xamutoon kii man maa ko fa sequñu. sequñu dara am nga wax naa ko ba mi sànq. événement bu am mu jël reer bi jox ko ci bool. muy génn tasante jëkkër yi ñibbi. waaw ko yàggee ngeen koo def daal ñaaw na xam nga maam bi faut qu'on se dise la vérité xale yu jigéen ñi nañu nopp seen jëkkër yi tey am ca non nopp la na ko dama ni dama ni non dañu xor bi reer xale yi nañu nopp seen jëkkër yi tey am ca bu ko def reer reer reer xam nga man mun naa nëbb ko ni Moussa xaaral nëbb koo tax mu jox ko reer waaw bu nëbb doon xaritam yoram nekkul ci moom ah, dëgg dëgg mais ah, dafa ndax moo tax mu jox xaritam sa baal ma dugg mi waaw di concentré wul fii waaw man mënu maa takk didi mu jongo ma lool waaw may tere sama xarit yu góor yëpp duñ gis jongo ma ak didi ah. xaaral rek loolu man benn lañ ci war a d'accord muy benn léegi nag ñoom ñoo war a am ngoru seexlu didi waaye ka ama xamal leen di du leen seex xaaral didi victime lay doon déedéet mu du ne rek victime de didi du victime de

di fu jëli fu mu génn ma di ko kar yaa ngi dégg waaw xam nga société bi fu mu dama fu ñu dugal de mm-hmm. dañ naan didi boo waxee loolu Assane dañ naan didi moo yàq da leen fekk ñuy ànd mu yàq seen diggante waaw du yàq la rek xaar rek xaar rek xaar rek waxaar rek yaa ngi dégg ñu ne didi moo yàq seen diggante xaar rek parce que didi mun naa wax ne Modou de daf may rogo jeeri ju suuf. waaw mais nit ñi mën nañu ko bañ a gëm. mais nag Modou Modou xaaral Modou s'il vous plaît rek. loolu duñ ko gëm kenn xaaral xaaral xaaral noonu avant jokkalante ba sax ay mu gëm ak ñàkk gëm. boobaa yow man condamné ma la Didi moo matadi moo manquant. moo ko def Didi du victime. deful am na xaaral ma xool si si xaaral ma déedéet du victime. du victime Modou waaw mais leen ma ñëw. yow xaaral deux minutes rek une minute. déedéet déedéet mu ne ko dama am jëkkër mu ne ko après. Modou may ma waaw Modou may ma Modou may ma. da ngay gis bam yee bam yee vécu une boo xam ne waa ji dafa nog jabaru waa gaañ bi. waaw moom laa lay wax. jabar ji mu ngi koy rejeté fu nekk. mais waa ji day toog ba xaaju guddi. muy mu koy woo téléphone. mais na ko wax ci gën a moom la ko ko. wax na yow fu mu jëlee sa numéro yemale ko waa ji mu ko ne dama ne dama dafa am lu doy waar laa lay wax. am na benn sew sew nag ma ko may. mais bi garaaw. da nga am benn bi garaaw damay ni la. man li ma mooy li am ci société sénégalaise bii. Hmm. xale yu jigéen dañuy am jëkkër ba pare di am far. gis nga lii ñenn ñi la fi nekk ko xoolal fi am jabar di doxaani. waaw dara nekku si dara nekku si ah, attention dara nekku si. sànq bërki démb maa ngi ko fa petit déj maa ngi ko fay dama teg déglul dama ni lii <laughs> waaw. dama ne lii mooy lu bon li bon a ngi waaw yaa ngi dégg Modou. waaw léegi bon gi ñu ni jigéen na ko def ak góor na ko def ban moo ci gën te ñoom ñaar foo jaar am ko ko ci def kan moo war a bon. baaxul ci kenn baaxul ci kenn waaye bu ñu nee am ku ci war a bon kan moo war a bon ku góor gi sax merci parce que non l'islam mënuñ jigéen dafay dafay man mënuñ jigéen dafay may répercussion kaama la bu a la bu gën a garaaw non man dafa may répercussion jigéen bu moyeetee ba jëlee ci ëmb yor jëkkëram doom jooju mën nañ dem cinquante ans mais écoutez kaay wax la kaay wax la ah. seen jonge jonganu gi ñuy incarné. Mm-hmm. di wane ni dañoo jekk dañoo jongee dañoo am fu ñu egg ba mu xola am na ñoo xam ne bàyyi sa ni bàyyi nga leen loo def ak ñoom ci guddi gi suba boo xëyee ci te ci. ci marché bi waaw ci guddi bi. moo rëy bi jigéen mais jigéen ñi nga def ko andi ah, ko bambi. ah jigéen ñi dañuy faral seen jëkkër xëy nettali ko ci groupe eh, WhatsApp. waaw ñun góor ñun góor ñun amul góor dañoo jomm. guddi di wax lu ñu def suñu jabar. mais jigéen ñi moom loolu mooy waaw waaw waaw waaw waaw doxaan xar waaw parce que xam nga la wax dafa ñëw ci groupe bi man groupe boobu maa ngi ci woon gëmloo ne jëkkëram ñoo xam dafa baax da ngay ñëw nga baax waaw yaa ngi dégg fekk sax jëkkër ji xoolal merci xoolal jëkkër ji si va pas à l'école waaw léegi moo ñëw ci biir si va pas à l'école xam nga léegi kër gi xam nga léegi merci beaucoup merci ba léegi jëkkër ji ma ñëw déjà mooy li ma lay wax xam nga léegi maam mi nee na carrément kooku te groupe ba la mu wax si di va pas à <laughs> mooy ji góor gi jëkkër ji ngóoraam baaxul. loolu rek lay teg amul amul léegi nag Modou loolu loolu lu ci des ko xam nga ko. déedéet jigéen juy weer borom këram. sama jëkkër ah dama la sama jëkkër ah dama la sama jëkkër ah sagal la rek sagal la déedéet déedéet sa jëkkër mënul da ngay wax sama jëkkër mën na man damay sama jëkkër mën na weer la ay weer la eh, jigéen ñi moom dañ maa eh, jaaxale eh, weer la Modou xam ah. nga weer sa jëkkër weesuwul mu mën mu ñàkk mën nga toog ci pénc nekk ci groupe naan sama jëkkër ak mën ak mën léegi baam bi tollu fee dégg loola ne xaawa nam découvrir ah, jëkkëru jëkkëru baam bi mii ma dama mën waxa yow yaa jaay sa jëkkër léegi weer sa jëkkër nag mooy lan weer sa jëkkër siri va pas à l'école ñoxal baaxul waa nga di ko wax sama jëkkër ji de balaa def dina naan looloy weer munul weer nga ko weer nga ko te jigéen bu nekk war nga jomb loolu te ngeen lu ngeen ci def dinañu ko wax ñu defuñ leen dara yéen a jënd wax lu leen def baam bi bàyyi leen li di def dégg na tëj nga laaj ko kii bi wax balaa ñu def dara dañuy naan café loolu café gi moom jarul nga ci jox ba lépp ay naan café aduna wax na yàlla mo da billahi dama naan café wallahi naan café aayul man nan laa ñu aayul aayul ah soxna ma leen aayul ah soxna ma leen ba sama gën a man man ko dëgg kay café ñu dara néew ci mais loolu aayul café du dara oustaz waxuñ café googu ma leen bàyyi loolu café googu ba asan damay leeral café yokk ñu xar laa wax ma café astaghfirullah atubi li waxuma café <laughs> wala yaas billah dama ni ah, dama wax rek bàyyi asan ñu am tuuti ñu dellu si. am tuuti lu ma ci wax ci ñi nga xam fa laay tëjee ñi nga xam ne dañuy siiwal seen borom kër yi. Hmm. la ñàkk jom ci nekk ñoom ci guddi gi xëy suba di ko nettali. Hmm. yonent bi nee na inna charra naas hmm. indallahi manzilatan rajulun yuqdaa ilayhi fa fa fa tuqdaa ilayhi suma ma yansiru sirraha nee ëllëg ki gën a xóotle ca fa muy dëkk ca biir safara mooy góor wala jigéen joo xam ni safara la yonent bi wax de que gën a am placement logement bu baax bu baax bu yaatu ca biir safara mooy jigéen wala góor goo xam ni day nekk ak borom këram fanaanoog moom ñu xëy suba mu tasaare la mu fanaanoog la mu fanaanee nga ne kooku lu mu yor yonent bi nee nag safara la kooku lu jëm wallahi alazim yéen war nañu xam de yéen ci bee ko wax de yéen xam ne asan est-ce que man exemple tey ma nekk ak sama soxna waaw exemple moom mu ni du sëy lampe buy tàkk waaw du def nii du def nii mu nga waxtaan ak moom nga daa dem si oustaz nga ne ko ah man de sama soxna si du def nii du def nii def nii est-ce que loolu du yonent bi mu yàlla jël ak tàbbal sa intention yi bokkul waaye intention yi bokkul intention yi bokkul da nga jug pour jàng pour uti xam-xam voilà loolu ci lii sa soxla def mais taal yeeg tàkk yeeg yooyu yëpp amul problème dañ ko sib taal lamp nag yooyu dañoo sib loolu oustaz dañ ko sib laajte woon naa ko man damay taal lamp parce que taal lamp day rafetal xale dëgg man dañu woon taal lamp day rafetal xale waaw waaw baax na baax na baax na am na ñoo xam ne taal lamp dafa neex xam nga lu ñu comprendre loo araam lu dagan ak lu suñu si nga war a taal loolu dañu ko ngeen déglu li ma leen wax dafa lay dama ni sëy taal lamp bi dañ koo si araamul araamul man damay taal lamp taal sa lamp dama yoon moom waaye lambatu ko moo gën maanaam xam lu benn ko xam lu ñu bëgguloon kersa dafa war a daw te ñun léegi daw duñ kersa non sama ba léegi mi ngi am kersa non kersa taal lamp taal lamp taal lamp Assane taal lamp dafa baax taal lamp yooyu noonu gars yi di wax naan ay booy war a sëy avant ngay sëy dañ ko war a tere yooyu noonu. waaw mais moo mais te mais. te <laughs> law anna ahadukum idha arada yati ëllëwoon yéen a ngi ne wala doo ko tal mënul ne foofu nañ ci indi débat foofu indi ko masala xam nga lu bëri mënuñ ko góor ñu ko sàmm set nu ñuy sëyee amuñu ay seey jeex na d'accord xam naa jeex na waaye su boobaa dafa wax ni jigéen bu ñaawa njort si moom fase ko mais jigéen bu ñaawa njort si yow ndax danay ñaan baax loolu antonot bi laaj ustaas ko jox